tamit di jàmm di dox jàmm di wax jàmm di def jàmm pour Sénégal yi fi nekk yëpp mën a am jàmm kon maa ngi baalu ñëpp ak ñi ma xam ak ñi ma xamul ñi ma tooñ ak ñi ma tooñul sax di baal tamit di baalu tamit ñëpp ñi nga xamante ne tooñ naa leen ci li ma yëg ak ci li ma yëgul waaye nag looloo tax tamit senegal ay nit ñu màgg ay nit ñu baax yàgg fee dund yàlla wàccee leen fi muy xéewal ci réew mi te ba fu ñu toll nii ñu nekk fi wéy di ñaanal réew mi ba réew mi alhamdulilahi rabil alamin am nañu loo xamante ne àdduna yëpp moo ñu koy ñeewant moo ñu koy moo ñu ciy ñee bëggoon ko am te xëy na ñëpp amuñu ko di ñaan Sénégalais yi tamit ñu ñaanal Sénégal continuer di ñaanal senegal ndax fii la ñu am amuñu feneen bu metee fii la bu neexee fii la li ñuy sàkk muy suñu njaboot fii lañ koy sakki niñ ko jàppee nag ay nit teg ko ci suñu loxo ci jàmm noonu la ñu war a jëlee tamit te waxuma président de la république rek waaye sénégalais yi fiy dund yëpp dañoo war a sénégalais yi ñi ñëw ëllëg ñu liggéey lu tax bu ñu ñëwee ñu xam ne Sénégal gi génération ba génération ku ci nekk def nga ci sa wàll